dalati leen ak jàmm ci li gën a ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak coow li nga xamante ne nag moo judd ca diwaanuk Ndingler ginnaaw benn vigile boo xamante ne Babacar Ngom njiital Sedima daal dina koy bàyyeekoo fii ci diwaanuk Dakar yóbbu ko ca leer ngir mu saytul ko ay suufam waaye ca waxtu boobee nag ñu ngay xam ne ni député bi di Abdoul Aziz Diop ba mu ñëwee di xool si situation bi ana lan moo ko wundu ca la vigile ba daal di yëkkee ab pistolem daal di koy tiimale kii di Abdoul Aziz Diop waral ba moom daal di dem ca gendarmerie bu Mbour daal di fay déposer ak plainte Abdou Aziz Diop daal di ne nag benn vigile moom moo ko daal di menacé ginnaaw ba mu yëkkee ab fetal tiimale ko ginnaaw plainte boobee nag ñu ngay xam ne ni vigile ba daal di nañu koy woo ca gendarmerie bu Mbour ngir amal fa ay l'enquête fu soriwul dara ci diwaanu ko Ndingler fa nga xamante ne nag moo di ca AIBD ginnaaw bi nga xamante ni fukki fan ak juróom ne ni tey vol yi war nañaa tàmbaliwaate di bàyyeekoo tugal wala ci dendu Afrique ñu ngay xam ne nag ne fii ci diwaanu Sénégal vol yi nga xamante ni rek ñoom ñoo fi war a bàyyeekoo vol bi ci war a njëkk a wàcce ci aéroport international Blaise Diagne di Diass ñu ngay xaar nag vol bi nga xamante ni rek moom moo di Air Algérie bi nga xamante ni nag moom moo war a njëkk a wàcc jotee negeen ni tey waaye nag Air France ak Air Sénégal ñoom danañ daal di départ daal di dem gaare ji fa nga xamante moom moo di ca l'aéroport ba ñuy woowee Charles Kër ñu ngay xam ne nag daal di ne volu Côte d'Ivoire daal di nay am waaye tamit bu soor ak ba nga xamante ne moom moo di Ethiopie Airlines bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ginnaaw ba ñu tëjee l'aéroport yi ak wàllum dem beek dikk bi war fas yéene kaa tijjiwaat ni tey fukki fan ak juróom ci weeru ko juillet gi ñu nekk. addu wax ci mbirum Assane Diouf Assane Diouf moom mi nga xamante ni kat moom mooy saaga kat numéro un fii ci diwaanu Sénégal ginnaaw activiste boobee bu ñu sukkandikoo ci les échos yéene ñu ngay xam ne ne Assane Diouf nag daal daal dinañ koy transféré fa nga xamante ni moom moo di ca maison d'arrêt bi nekk ca diwaanu camp pénal ca liberté 6 ginnaaw chambre d'accusation bi nag ba mu daal di taxawee rek daal di lànk ndaare tëdd ci suuf daal di ne ab annulation procédure bi moom duñu ko amal nege ni démb la woon fukki fan ak ñeent ci weeruk juillet waral na nag ba ay avocat yu Assane Diouf daal di jàpp ne placé sous mandat déppo dépôt boobaak léegi ñu ngi ko teg loxo juróomi fan ci weeruk juin gi ñu génn waral na nag ba ay avocat wam di xam ne ni àq ak yelleefuk Assane Diouf dañu koy faral di salfaañi gagné keneen koo xamante ni saa sile tembe nag mu ngi dugg ci ab guuta du kenn ku dul abindoor abindoor mi nga xamante ne daal nañu koy condamné ñaari weeru kaso yoo xamante ne nag du ko tëdd waaye fas yéene naa yëkkati ci lu tollook ñaari ci ay million daal di koy fay ah, ginnaaw ba ñu jàppee ne ab occupation illégale la daal di def ci benn espace public fa ñuy woowee rond bi nekk ci diggante ambassade bu Mali ak fee di KFC nekkee ca diwaanu ko corniche ba bu ñu sukkandikoo ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru Habib Ndour daal di ne moom du bàyyi benn yoon atte googee nga xamante ne nag daal di nañu koy atte ba tey bu ñu am sukkandikoo ci ay leeral yi nga xamante ne waa wépp ñoo ko xam ne negee ni tey waral na nag ba rakk Youssou nduur gile daal di jël ay avocat di maître Seydou Diagne ngir daal di dem déposé ci waat negee ni suba ci cour d'appel bu Ndakaaru ginnaaw bi nga xamante ne rek Habib Ndour daal di nay jàpp ne mbir mi nag mbirum jaay doole dëgg la ca diwaanu Kaolack daal di dem ginnaaw bi nga xamante ne rek benn kër effondrement dal ab dal boo xamante ni nag daal dinay wàcc ci seenub kaw mbir maa nga am negéeni démb fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ci bi 17 heures ci ngoon di jot ñu ngay xam ne nag ne quartier boobee ñuy woowee Tabagon Tabagon 2 nekkee ca diwaanu Kaolack ca ba ay 17 ci ngoon di jot la benn terrasse daal di daanu ñeent ci ay néeg yoo xamante ni nag seenub dal daal dinay wadd ci ñaari locataire yu ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti ba ñu yóbbu ci hôpital El Ibrahima Niass bi nekkee boo moytuwul moodu moodu yi nga xamante ne nag bàyyeekoo woon nañ ci diiwaanuk Italie ñëw fii ci diiwaanuk Sénégal dinañ am ay jafe ngir duggaate ca diiwaanuk Italie bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar gi nga xamante ne nag waa Italie ñoo daal di bind googule xaatim ñu ngay xam ne ni fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru ko ut nga xamante ne moom la ñu dëgmal moodu moodu boo xamante ne yaa ngi ci diiwaanuk Sénégal mu fekk la ci diiwaanuk Sénégal rek jàppal ni di nga dem uti ji lii di visa ndaxte yooyu le visa dafay daal di expiré wu bu ñu sukkandikoo ci office de immigration mi nga xamante ne nag daal dinay jàpp ne beneen ko visa rek moom mooy tax nga mën a duggaat ca biir dëkk ba waral na nag ba Modou Mody di sàkku ci njiitu réew mi ngir mu daal di yëy yàbbi ci mbir mu ni mel ndaxte nag Air Sénégal seenug njëkk daal dinay seer loolu am na famille yoo xamante ni sax ñu ngay xam ne ni ñett ci ay doomu adama yu war a dellu boo moytuwul rek fi la leen di fekk dara waralu ko lu dul ñàkk ay koppar ya leen delloo di ne la ñu fa daal di def daal dinay jéggi dayoo ndaxte nag fa ñuy woowee mausolée bi nga xamante ne rek fa lañ denc président guinéen bi di Ahmed Sékou Touré ci atum 1958 ba atum 1984 ginnaaw bi nga xamante ni nag nege ni démb ñu ngay xam ne ne bàmmeelam boobee dañu kaa profané maanaam dañu kaa ñëw caxat-caxatee mel ni ña ko doon sulli ca waxtu boobee nak ñi def lu ni mel bu fekkente ni police ba daal dinay teg loxo kenn koo xamante ni njortu nañ ne ca la bokk rek sensibiliser tembe responsabilité yi leen a ëppi ay loxo waral ba ñu daay tijj ci ab lanket di xool ana lan moo waral ñu dem ba ca bàmmeelu pa Sékou Touré di ca def naka sudul noonu ginnaaw bi nga xamante ni nag député yu faree ci kujjeeg politique yi ñoom nag daal dina ñuy dem fa nga xamante ni rek moo di ca diiwaanuk Ndingler doon xoolu suuf yooyee ana coow loolu ana lan la jur ca waxtu woowee nag ñaari fan rek da daal di def jëwriñ gi yor wàllum kaaraange biir réew mi ak sécurité publique di Aly Ngouille Ndiaye daal dinay amal nege ni démb dérangement wak déplacement dem ca Ndingler ginnaaw bi nga xamante ni nag demoon na ngir xooli ji kii di président directeur général bu Sedima lan moo ko jotale ak askanu ku Ndingler suñu sukkandikoo ci libération online Aly Ngouille Ndiaye nag mu ngi àndoon nag ki nga xamante ni moom moo di Abdoul mel ni rek ay leeraange la ñu bëgg a ci suuf yooyee nga xamante ni mooy jotale askanu ku Ndingler ak kii di Babacar Ngom suñu bàyyeekoo ca diwaanu Ndingler dañuy dem ca Touba Touba nag fa ñuy woowee quartier Daaru Marnaan quartier Daaru Marnaan sax ñu xam ne ne bokk na ci ay quartier yu gën a populaire ginnaaw ab coow bu méttee métti nag moo fa daal di am dara waralu ko rek lu dul dund gi nga xamante ne ñu nga koy séddalee dund gi nga xamante ne nag état du Sénégal moo ko joxe ngir ñeel wàllu mbas mi waaye dund googee ñu ngay xam ne nag daal di ne yooyu le saaku ceeb laata ñu cee jot rek ab xeex bu méttee métti moo am ci diggante askan ba ak commission bi yor wàllum séddale gi ca waxtu boobee sax nag ñu ngay xam ne ni ñoom dañaa daal di dàqaat nit ña nga xamante ne ñu ngi loolee bu ñu sukkandikoo ci benn responsable bu APR moom mi nga xamante ne nag ci coalition Madické 2019 la daal di bokk moom rek moo daal di jiite boobule combat nag xeex yooyu nga xamante ni jotoon na cee am waral na ba commission bi daal di neenal lépp gàdduwaate ceeb yooyu tëj ko ràpp te fas yéenee njibbi beneenu mbir bu doy waar boo xamante ni nag moo daal di am muy wàllum góor jigéen gi nga xamante ni ñu ngi koy tudd fii ci diiwaanuk Sénégal bés bu yàlla sàkk mbir may gën di am tànki kanam ndaxte kii di Pape Sagna moom ni nag ci atum 2016 dafa jàkkaarloo woon nag benn patron chinois wam daal di koy jamat ay paaka ba mu ñàkk bakkanam negeen ni démb nak lañ ko doon àtte ca la bu ndakaaru ñu ngay xam ne nag ne boobee naam bu fekkente ni borom ñaari turi la ca waxtu boobee nag moom dafa daal di noboon waa ji nga xamante ni moom moo di Pape Sagna waaye Pape Sagna ba mu nekkee ci ay relation ak waa joojee nga xamante ni nag ñu ngi koy woowee ci turu jams ba mu demee ba mbir ma soof ko ca la daal di takkee ab soxna ginnaaw takkub soxna googee bu ñu sukkandikoo ci les échos yéenekaay yi mu ngay xam ne nag ne mbir moomee dara waralu ko lu dul si nga xamante ni Pape Sagna daal dina koy takk ci la chinois ba daal di mere woo ko ci benn guddi ne ko sama kër day lakk laata muy jël taxi di daw di ko wallu ca la ne maa ngi ci station bi ca la jaaree ca marché ba jënd ab paaka fekk ko ci biir otooma laata rek kii di jam si doon ko amal li nga xamante ne moom moo di ay attouchement ca attouchement yooyee mu ko doon laal te Pape Sagna ne génn na ci mbir mu ni mel ci la roccee paaka ba jamaat ko lu tolloo ko fukk ak juróom benni jam-jam mu daal di ñàkk bakkanam mu bàyyi ko ca biir oto ba daw riir utali fa nga xamante ne moo di ca kër bi ñuy woowee jams laata muy rocce lenn ci ay matériel am ak ay xaalis daal di daw njibbi ca këram atte boobee nag atte nañ ko nege ni démb ca tribunal bu ndakaaru waaye nag ñu ngay xam ne ne boobule atte daal di nañu koy renvoyé waat dara waralu renvoi boobe lu dul gën cee am lu leen reer bu ñu sukkandikoo ba tey ci chambre criminelle tribunal bi nekkee ci diwaanu Ndakaaru daal di ne dina joxe délibéré ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet gi ñu dëgmal addu wax ci mbirum Abiba Abiba mi nga xamante ni nag moom moo di doomu ko Mamadou Diop ISEC bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ñu ngay xam ne nag ne dossier Abiba daal di nañ koy jàllale ci procureur de la République ginnaaw Abiba mi nga xamante ni convoqué woon nañ ko ca police bu jëppal ndax coup blessure yi nga xamante ni nag jotaloon na kaa amal ci jabaru papam ji jarbaatam ba mu ga Aysatu Seydi ginnaaw bi nga xamante ne nag Aysatu Seydi daal dina yóbbu doomu jëkkër ji di Abiba ci yoon dara waralu ko rek lu dul ne ab jarbaatam la Abiba daal di dóor ba mu jëlee ci ay gaañu gaañu sax dem nañu ba retiré seenu plainte ginnaaw Abiba ba mu amee moom tamit ab këyit boo xamante ne wane na ne ab certificat médical yaramam moom tamit jëlee na ci ay gaañu gaañu ñaari parti yépp ba ñu waxtaanee ba tombé d'accord mbir ma procureur daal di koy jël ne dinaa ko def sama yëfu bopp waral na nag ba saa sile ne rek ay du yem ci boppu borom saa si le tembe bu fekkente ni am nañu ay xibaar yu wérte wóor moo di procureur daal dinay jël boobu boobule dossier fas yéene cee amal akub l'enquête mbir ma xewoon ca stade Demba Diop boobaak léegi nag mu daal di def ñetti ci ay at ci diggante doomi mbuur ya nga xamante ni nag ñàkkoon nañ ci seenu bakkan ci football bi nga xamante ne amoon na ca stade Demba Diop te ay supporteru waa mbuur lu tolloo ko juróom-ñetti doomu aadama ñàkk ci seenu métti ci diggante ji nga xamante ni nag ñoom ñoo di waa mbuur ak ñii di waa Wakaama ndege ni tey mu daal di am ñetti at waaye waa mbuur li ñuy sàkku rek mooy ñu daal di yëkkati ay ndàmpaay daal di koy teg ci seenu loxo waral na ba ñuy yékki di jàng ay kaamilu arxuraan fa nga xamante ne rek moom moo di ca jàkka yi ak jumaa yi ngir ñaanal seen doom yooyu fi bàyyeekoo keneen koo xamante ni nag réew mi ñu ngi koy jooy saa sile tembe rek du kenn ku dul Ousmane Tanor Dieng Ousmane bi nga xamante ne nag bàyyee woon na fi fukki fan ak juróom ci weeru juillet ci atum 2019 bés ak bés néegi ni tey mu yemboowaat fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2020 mu daal di def benn at bi nga xamante ni Ousmane Tanor di nay ñàkk bakkanam ca diwaanu ko France moom bi nga xamante ni nag ràññee woon na trop ci langue ko politique gi waral na nag ba askanu askanu Sénégal ak umma islamique bi yépp dellu di ko ñaanal ngir yàlla xari ko aljana ñu wax ci taw bu njëkk bi nga xamante ne nag njëkk naa sotteeku ci région de Dakar ak dégâts ya mu def ginnaaw ba ci benn doomu aadama ñàkkee bakkanam ca diwaanu ko Gueule Tapée xale bu góor bu am ci lu tolloo ko fukki at ak juróom waaye tamit ñett daal di ciy jëlee ay gaañu gaañu yu métti loolee moo di bilan boo xamante ne nag mën nañ kaa tiire ci première taw bi sukkandikoo ci Vox mi nga xamante ne ngay dellu siwaat rek di xam ne xale bu bu góor bi fekk baax ci diiwaanu ko gël tàppe am ci lu tolloo ko fukki at ak juróom moom mi nga xamante ni courant moo ko maas mu daal di mujjee ñàkk bakkanam waaye ca i Pikine Icotaf ab benn ndaw soo xamante ni nag war naa am ci lu tolloo ko juróom benn fukk ci ay at moom tamit ab courant moo ko maas ba ñu yóbbu ko ca diiwaanu sauvetage ñuy joxañ baaraam ak tuuma ne dara waralu ko rek lu dul projet bi ñuy woowee train express régional di TER ndaxte nag jàpp nañ ne ca diiwaanu Pikine moom jafe na lool seen courant daal di dellu